de l'ostracisme du fait que dañuy jël victime culpabiliser ko loo tax nga dem fa tax nga nous euh, douleur supporter ko pendant cinq assauts cinq fois ba mu ba ko mu taxaw mom, luma ni est-ce que yakar euh, le 1er euh, juin am ndam. dañuy am ndam du appuis ndax quatre appuis weesul yow ñu ne la nga génn sa euh, kay nga génn saako yu daw di wuti ñaay ba xam nga daa génn saako yi waroon nañ ko ba sonn mu ne du bëri quatre appuis parce que fi mu toll nii aji Sarr li des rek mooy mu sëlëm ko daaneel na ko ba pare sëlëm bi rek a des te <laughs> sëlëm na ko de ah dëpp ñi moo des kon toog ci kawam toog ci kawam photo ba ñu ko nee test ADN mu bañ foofu la nekkee quatre appuis mu ne ko kaay ñu jàkkaarloo mu daw dem làkku Ziguinchor et ce qui c'est symbolique le fait que mu dem Ziguinchor mooy ne xam na ni Sénégal toppatu ko il est allé se retrancher dans son bastion mais malgré ça je sais que les patriotes de Ziguinchor dinañu jóg nekk jógal génnal réew mi génnal ci dëkk bi demal wuyu ji xam naa ni bés bu force de l'ordre di dem di ko arrêté xale yi xale yi Ziguinchor ci boppam ñooy génn jàppale force de l'ordre yi pour mu génn comme ni Sénégalais fii fii nii comme ni waa Dakar yeewoo léegi gis nga Dakar tey calme plat calme plat Thiès calme plat dëkk yëpp mais les gens ont compris day moom daw mais c'est c'est c'est la mère des aveux c'est la mère des aveux merci et kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que yéen waa la presse am na moment ñu Leral TV vous avez été les premiers sur le terrain Nous man su ma su ma duggee ci combat bi Leral la tax wax dëgg yàlla du nuyu seen seen kilifa Dame Dieng parce que Leral moo dem Djirnda leral mo le seul qui a osé avec Khalifa Khalifa et à la suite de leral nous on a compris que ce combat là mené euh, devait être mené et que ça valait la peine qu'on s'y colle donc jaajëf jaajëf dame, merci vive Kodas, di remercier nak wa Kodas, ñep sama team Iba Ouseinou, Fatiam, Fatoubao, Fatou Ngarou Marie Ndiaye Ngola Diva lumu mu deful amul mom ci ci Adji Sarr donc nak ku lim jum kuma tuddul nag <laughs> merci jërëjëf merci à vous <laughs> jërëjëf.